Euh, ñoo ngi dalal tey Jean-Benoît Baroum muy directeur muy directeur des études ci école des arts di professeur formateur euh, tamit ñuy màggal le 15 avril bi bés bi ñu jagleel art euh, tey lan nga ñu mën a wax justement ci célébration bi lan nga jàpp ne mooy solo bi. waaw dinaa wax essentiel bi avec mhm. des petits mots. Mhm. vous savez que màggal bésum art. Mhm. nekk na loo xamante ne lu rëy la ci lekk li ñu am li koy wone mooy l'art en tant que tel mm-hmm. et art bi dafa parce que lépp looy def mu rafet mu mu jekk rek dañ koy ne art la mm-hmm. rawatina nag li ñu doon en tant que culturellement en en que séeréer en tant que joola mm-hmm. suñu lépp ci art la gën a basé donc art lu am solo la donc maagal art jagleel ko bés waroon nañ gis dégg fu ne waroon nañ mun a gis ne tey ci bésum aar la. Mhm. parce que leer na ba ne ñiy dégg peut-être déglu émission bi ñoom rek ñooy xam ne tey jii sax dañ ko jagleel aar. Mhm. boo defoon micro trottoir nga ne tey yow bés bi ba lan lañ ko jagleel kenn du ko xam. Mhm. donc tu tu vois que c'est vraiment dommage quoi bésum aar ak ni aar yaatoo ak ni aar toolu. muy musique muy art plastique muy cinéma muy li ak li ñuy màggal bésum art te mun a ko sentir. Mhm. ah kon am na lu def et justement euh, suñu dëkk ndax euh, bés bi euh, mës nañ ko màggal ci mim réew. waaw parce que ni ma daan waxee nag xam nga l'histoire boo xoolee histoire amoon na ay jamono jamono Senghor jamono Laay Abdou Diouf yaakaar naa ne lii daawuñu ko di ko caaxaane. Mhm. bésum aar bu jotoon rek da ngay sentir partout que lii am na lu xew amoon na bon jamono yii nag je crois que am na leneen ñoo leen gën a yiital que maagal aar quoi <laughs> parce que il faut appeler il faut appeler le chat par le chat donc waroon nañ mun a gën a góorgóorlu te loo euh, ñu gën a mun a non seulement may cër artistes yi mais rafetal aussi aar parce que aar fi muy yóbbu dëkk bi tamit sori na lool dans tout le domaine. Mhm. donc tey am na lu bari lu xam naa ne ñu ngi koy waxtaanee ci rukk yu yi mais yaakaar naa ne mbooloo mi yëpp waroon nañ xam tey ne voilà bésum aar léegi yow anam googu noo ko décrypter tey le fait que euh, suñu euh, réew mu ne cell ci bés bi nga xam ne ñoo ngi màggal aar te pourtant dëkkam euh, amaane na am na ay tur yi nga xam ne dañ koy tudd ba fu ne ci wàllum aar. bi billaahi lu doy waar a ngoog nag lu mm. doy waar a ngoog cell googu yow nan nga ko jàngate ah comme li ma la wax rek tu tu xam nga dañuy ne président de la république mooy mooy ki njëkk war a ormal aar. Mm-hmm. nuñ ko waxee le premier protecteur. des arts mu am mu am ministère boo xamante ne moom lañ ko jagleel ministère laa la wax de. Mm-hmm. léegi moom ministère. Mm-hmm. alors bu amee bésum aar te mënoo ko sentir ça veut dire am na lu def. kon jaruloon sax ñuy créer ay ministère donc ça veut dire am na njiit yoo xamante ne tamit ñoom ñoo waroon. Euh, ormal bésum tey jii. Mhm. waroon nañ ko mun a waroon nañ ko mun a sentir fu ne. Mhm. parce que aar moo jiitu te muy mooy mujjee de laay. Mhm. Euh, donc euh, tey li fa des daal mooy maanaam ku laal ko daal des na daal des na des na def ci li war des na. d'accord. des des bi nag xaw ma. Euh, fu mu defee donc est-ce que ñi ko war a jiite est-ce que ñoom ñoo koy jiite mhm. est-ce que liñ ci war a def est-ce que def nañ ko ci voilà ñaar yooyu daal boo ko seetaatee nga xam ne euh, ah daal doy na waar quoi Mhm. yow ngay formateur ca école des arts école des arts googule di dalal euh, bépp pàcc jëm ci art bi tey euh, ñu wax si euh, justement art plastique rawatina nan la tëroo ci mim réew jamono ji lan nga ñu ci mën a wax. voilà comme ni nga ko ni nga ko waxee sànq rek man ci musique laa gën a féete. Mhm. mais bu nekkee ci mbirum xam-xam am na lu bari loo xamante ne xam nañ ko ci pàcc yëpp. Mhm. Euh, xam nga école nationale des arts mooy former mooy mm-hmm. ñii nekk professeur art plastique yëpp foofu lañ di former mm-hmm. xam nga déjà yow école nit benn école bi nga am rek ut tabaxal ut ko moomal eh, ay loko yu moomal boppam sax mm-hmm. amul depuis jamono Senghor ba tey bu jam ñaajo biñ leen digoon kooku de ay wax waxu nen la waxa waxatuñ ci sax pour te dire. Mhm. ak yaakaar bu rëy boo xamante ne ñëpp amoon nañ ko ci. mu ne enfin Sénégal dina am une école nationale des arts xam nga moo mot national dafa fort. Mhm. parce que boo nekkee extérieur ñuy wax école nationale rek. mais nit gis nga ay gan bu ñëwee ba pour nga won leen ne fii mooy école nationale des arts da ngay <laughs> donc xam nga loolu parce que lépp loo am rek day day wone yow li nga doon ak li nga mel. Mm-hmm. donc ñaata professeur ñaata professeur ñoo nekk ci domaine bi ñaata ñoo ñu former te tey jii sax pour pour euh, ñu ormaal leen dafa des na lu bari bari bari. Mm-hmm. donc euh, domaine bi daal yaakaar naa comme ni ñuy wax naka la ñu koy français c'est le parent pauvre. parent pauvre waaw moo ci gën a néew la daal. ci ay euh, ci seen. voilà moo ci. et pourtant li fi rafet li fi jékk yëpp ci domaine bi la. billaay walaay. <laughs> d'accord mu am euh, yi nga xam ne dañ koy jéem di teg euh, ngir gën a wane li jëm ci art plastique ba tey ñu des ci muy euh, biennale de l'art contemporain ndax tey yow uh-huh. gis nga ne vitrine la pour ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci secteur bi fii ci mim réew ñu xam leen ca bitim réew. Eh, eh, eh, exactement gis daje bi ci boppam. Mhm. dafa am solo. waaye est-ce que niñ koy niñ koy defee noonu lañ ko war a defee. Mhm. parce que xam nga mbir mi tur bi day rëy waaye contenu bi lu mu ëmb moo dul jaar yoon. Mhm. parce que ndaje bu mel noonu booy ut ku koy jiite maanaam un directeur artistique euh, de la biennale. yaakaar naa ne ne su am na ci ñoo xamante ne am nañ xarañte bi. am nañ xam-xam bi pour mën ko jiite. Mm-hmm. am nañ ay artistes yoo xamante ne normalement kenn waru leen bàyyi ginnaaw. Mm-hmm. mais boo jëlee privilégié tamit ñi nga xamante ne feneen la ñuy jógee nga may ñëw ñu cër ñi nga ñi nekk ci vraiment doy waa daal xanaa ay point off yi kenn du leen gis mm-hmm. da def ay off yoo xamante ne sax kenn xamuñu fu ñu féete communication bi jaarul yoon donc mbir mi daal yaakaar naa ne pour mu dox il faut que ko war a jiite jiite ko. kon daal moo ngi am mais amalul solo benn yoon ñi nga xam ne ñoo ci yëngu te nekk ci mim réew. am na tam am nañ ci seen bopp de. parce que hmm. mbir mi dafa mel ni am na ñi ko yeeloo mais am na ñi ko yeelawul daal. ok parce que xam nga lu lépp loo politiser. Hmm. kon laar kenn waru ko politiser. boo ko politiser maanaam. ñi féetee ci yow ñoom ñoo ci war a am. Mhm. parce que xam nga comme eh, ñaar arti artiste yi nekk ci pouvoir yi artistes yi nekk opposition gis nga fi ma bëgg a waxee. <laughs> te te l'art warul demee noonu. xam nga li daal université tey mooy ay les étudiants de les étudiants daal xam nga loolu mosuloon am suñu ñu dëgg la étudiant étudiant la parti politique waroo fa am. Mhm. alors pour pour revenir à la raison. pour mayaat aar bi doole nu mu meloon ci jamono Senghor mhm, mhm. yaakaar naa ni war nañ mun a considérer métier considérer leur compétence mhm. nañu jiital compétence ci lu ne bañ a jiital tour bala ñuy jël ay affaire yu affaire yu politique aar mbirum compétence la birum xam-xam la suñu suñu buggee mu dox nañu ko nañu am compétence yi nañu am euh, mën-mën bi. Mm-hmm. ndax nañ ko jiite. Mm-hmm. buñ ko jiitee billahi euh, di nga gis nga xam ne Sénégal du moromu fenn ci a ci domaine a <laughs> d'accord parce que malgré les problème gis nga ne fu ñu jëm jël jël jël faraay. dëgg la cinéma gis nga mm-hmm. mu toll. gis mu fu mu dem. suñu taxawaay ah. day am solo euh, fépp fu dem ci wàllum aar. billahi buñ ko buñ ci defee liñ ci war a def xalaatal li mu tey ñu wax ba tey ci wàllum exposition ñu gis ne euh, bëri na euh, ci musée des civilisations noires lañ fay gis ay exposition yi nga xam ne euh, dafa jóge bitim réew ñëw comme jamono ji may addu may ñuy waxtaan ni mu ngi fa am Picasso au Sénégal tey ndax opportunité yooyu suñu locaux yi tamit am nañ ko ci musée yeeg galerie yi fi nekk donte new na lool ci mim réew. gis nga Elisabeth bu am solo nga posé noonu. Hmm. gis nga man tey jii sax nangu woon naa euh, rafetlu naa musée bi. Mhm. mais avant musée bi am na lu fi nekkoon. Mhm. te et te jusqu'à présent kenn valoriser ko am na état yoo xamante ne yenn musée yi boo demee Corniche ba am na lu ñuy jagleel Senghor foofu. Mhm. boo gisoon tey ni mu mel nga xam ne euh, réew mi laalu ñu dem ci domaine artistique. boo demee ki yeneen musée yi doo yow tu n'oses même pas dire que ça c'est un un musée te xam nañ njëriñu musée xam nañ eh, ay galerie xam nañ seen njëriñ musée bi même nañ musée civilisation ñëpp a ko bokk. Mhm. muy waa Sénégal muy waa Afrique. Mhm. mais nañu jiital parce que balaa ngay laax jaay da ngay laax lekk. nañu jéem a xool naka la ñuy yombalee accès bi artistes su Sénégal yi. ku ne war na la ñu mën a organiser même des des des des expositions à tout moment. parce que musée mm. loolu mooy njëriñam. ñu jéem a galerie yi fi nekk ni fi xas nekk ñu xool naka lañ koy rétablir. Mm-hmm. réhabiliter ñu defaraat ko pour artistes yi am parce que foofu il faut des lieux d' expression maanaam artistes il faut ñu am artiste dafa am foo xamante ne foofu foofu la war di daje. Mm-hmm. donc loolu bon loolu suñ ko deful tamit ah léppay nelaw rek <laughs> parce que art plastique uh-huh. il faut que nit yi am même population bi ñu tàggat leen pour ñu xam ne pour nga gis liggéeyu uh-huh. art euh, artistes yi uh-huh. fale nga war a jëm ay galerie te jii boo xoolee population bi boo waxee galerie sax duñ la xam lan lan mooy galerie boo waxee musée ñu ne lan mooy musée donc am na lu bari lu des am na lu bari lu des malgré que talon yaa ngi fii lii ak lii mais tout ça man j'accuse toujours cette mauvaise politique culturelle. d'accord maanaam nu ñuy caamaatle culture bi. Mhm. ah loolu moo def. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax Jean-Benoît Bakhoum. merci beaucoup am ngeen jaaraama yàlla yàlla na yàlla gën a jàppale aar bi waaye. amiin.